dootu yàq suñu njàng dootuñu tasaare dootu yàq suñu téere yi bokk na ci li tax ñu tabaxee ko ni rafetal nag rafetal la rek jamono bu nekk jumaa ji ba mu paree ñu di ko sanc président ab Abdoulaye Wade moom la taseet moo ñëw sanc ko bii itam bi mu paree nga xam ne ima wax na leen ne université la parce que rôle université lay dox ñu koy sanc teew yaay ñëw sanc ko yow yàlla may nga sanc ko te comme ni nga ko waxee ci sa wax ñaar yooyu rek ñoo amee diine ñaar yooyu rek ñoo amee réew diine ak xam-xam diine ak xam-xam ñoo amee réew bon nag gis ñu ngi dégg yaa ngi encouragé diine won importance bi mu am ci doomaadama yaa ngi koy wone te itam mi wone woo ko rek am ci mais yaa ngi koy jëfee xam-xam itam voilà comme ni nga ko xamee gis nañ yëngatu yi nga xam ne yaa ngi koy yëngatu bees pour jëm ci école bi jëm ci jàngalekat yi yooyu yëpp ñu ngi koy gis te loolu yëpp mooy li nga xam ne moo mun a tabax abenir bi nga xam ne moom la Sénégal yëpp yaakaar ci yéen ba teg leen ci place yi ñu ngi sant yàlla bu baax bi la yàlla tegee ci place bi nga xam ne euh, yaa ngi toll ci ndaw encore say gént ba tey mën naa nekk gént yu foor a foor ñu ngi euh, bu ñu ko ay màggat rek ñoom lañu fi daan taaj waaye tey ñu ngi fi taaj ndaw boo xam ne moog ndaw yu ñoo maase bokk lu ñuy gént bokk lu ñuy bëgg yal na la ci yàlla dimbale loolu nga bëgg pour Sénégal yëpp te wax ko yal na ko yàlla dëggal yàlla bu sénégalais yi di demati feneen di uti yàlla nañ am fii lu leen fi yàlla bu suñu doom di suuf ci géej gi di dem te euh, uti te liñ am liñ li ñuy uti mën nañ ko am fii su fekkee nangu nañ liggéey bu baax a baax liggéey nag du da dem rek ci bureau yi wala diplomatie mais tool yi itam liggéeyukaay la mbay liggéeyukaay la moo tax am nañ projet mbay bu rëy ci bañ Taïba Niassène euh, ci ci quatre cent euh, hectares yoo xam ne dañoo pare pour di gént lépp lu suuf di mën a génn pour jox ko doomu aadama rek suuf soosu mun na koo génne moo tax ñu ngi sonn ci tool ñu ngi sonn ci tool yooyu euh, ñu ngi yaakaar incha allah feeg ñaar ñetti at ñeenti at dina joxe euh, fruit incha allah ñu ngi kontaan ci sa toogaay fii ci ñun population bi di xool seen président de la république président de la république di xool population am te ñaari doole yooyu yëpp yàlla mun na cee génne barke boo xam ne incha allah dina feeñ ci sa yal na ko yàlla feeñal ci sa liggéey wax nga ko Sénégal soxla na jàmm soxla na ñaan ndax soxla na jàmm Sénégal soxla na ñaan ndax soxla na génn ci difficulté yi nga xam ne am na ci àddina bi yëpp te Sénégal benn parti ci àddina bi sox soxla na ñaan pour yàlla mosul ñu ci yooyu ñu ngi ci di ñaan guddeeg bëccëg soxla na ñaan ndax itam bëgg nañ lépp loo xam ne dafay yóbbu nit ci développement bu bu aw yoon bu dëgër bëgg nañ caa àgg bon tamit soxla nga ñaan dina ñu ngi lay ñaanal ci loolu mosuñ daa ñàkk ñaanal benn waxtu suñ président de la république moom la ñuy àndat moo nekk ci suñ kaw moo nekk ci suñ xel moo nekk ci suñ xelaat moom la ñuy ñaanal yàlla moom lañ bëgg yàlla defal ko tawfiq parce que tawfiqam mooy tawfiqu sénégalais bu nekk ndax loolu sénégalais yi bëgg yépp dëggal ko yow lañ ci délégué ne la jiite ko ak ñi nga àndal donc yàlla moomu la teg foofu jiital la Sénégal yëpp jiital la yàlla moom du la bàyyi te ànd te dimbalewu la ñu ngi yaakaar yàlla yokk ndimbalam ci yow ñu gis Sénégal bi nga xam ne moom la Sénégal bu nekk di génti ci senegal développement am am xam-xam yëpp yal na ko yàlla jaarale ci seen loxo ngeen dëggal ko ñu ngi sant mbooloo mu tedd mi ñëw ngir déggee seen suñ président gis ko xool ko bégee ko loolu itam ñu ngi leen ciy gërëm bu baax euh, ci seen teewaay ci wone ne fonk ngeen ñun ñëpp fonk nañ suñ président te ñu ngi koy ñaanal yàlla yal ko yàlla defal tawfiq yal na yàlla dimbale la yal na yàlla saxal la yàlla àggali Sénégal ci gént yu kawe yi nga xam ne yaa ngi koy gént sénégalais bu nekk di ko gént yal ko yàlla feeñal ci seen loxo ak ci seen ay ji ngeen toll incha allah yàlla te yàlla dina leen ko defal jërëjëf ci sa teewaay néeri na jërëjëf ok amiin amiin amiin amiin mi ngi rakleel ñépp seeni problème rawatina réew mi soo gisee taalibe bàyyi doo leen dégg ci yëngatu yi doo leen dégg ci yenn wax yi c'est parce que moom message bi muy joxee dafay dugg ci nit ñi jàngalekat la universitaire la yarkat la wax nañu ba wax ñu ne alkaati bi nekk ci tali bi sax jox leen ko wàccuwaayam jox leen ko cëram kon kook nga seet si tey fekk fii ay mbokkam ak i taalibeem dëkk bi nag dëkk bu màgg la wax naa sànq ne village la woon dem ci quartier mais actuellement considération bi mu am mooy capital la ndax ay dëkk yu bëri ñoo jokk ci kawam ku xam faydu ni mu yem borom fi mu dëkk foofu mooy capital de la faydu tijaniya kon sans plus dañuy jox fadilatu cheikh Mouhamadul Mahi Seyd Ali Cissé le porte-parole mu wax ak yow asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi fàttali tin bàyyi mas naa wax ne jullit bu aalee na wax allahu akbar ñu ngi tatagal ci turi alxalifa cheikh Mouhamed El Mahi Ibrahima Niass xaadimul umma ci turam ak turi Medina yépp nga xam ne ñi ngi teew ak moom sëriñ Aliou tudd na léegi al imaam Cheikh sise Cissé Cheikh Mouhamed El Makki ak mbooleem rakkam yi waaye mboolem kër Cheikh Alxaaji Abdullahi mu mag ñi ngi nii teew muqaddam yi jógee ba Mauritanie gan ñu jógee ci barab ñu fasantikoo ñoo xam ne ñu ci bëri tombee mooy waral ay gaaf ñi ngi lay dalal ci sa kër ci sa biiri soppe wax naa la léegi